tëj université euh, am na lu euh, ay argument lu gouvernement bi joxe recteur bi joxe mais loolu dëgg euh, xel mënul nangu loolu parce que lu ko lu koy firnde dafa bari bon léegi nag bu ñu jëm a analyser comportement gouvernement bi ragal na Yankhoba lu mu wax erreur politique bu mag moo nar ñëw fii ak deux mille vingt-quatre c'est-à-dire six mois soo tëjee université six mois c'est un an uh-huh. ñu ngi dem ci septième mois bi ça va être une année blanche organisée par le gouvernement et loolu musul am ci Sénégal Wade dund na fii lu jafe Abdoulaye Abdou Diouf pareil Senghor mais décision tëj université décision politique bu grave la 68 euh, lu tax ñu tëj ko parce que c'était une révolte sociale mhm. du université rek société bi yëpp moo révolté wu contre le système euh, contre le système il a fallu que Senghor dem ci armée française pour rétablir l'ordre mhm. donc situation bu grave moo tax sengoor tëj université bi mhm. mais même ci xalaatin bi mu ko tëjee toutes les grandes réformes de l'université foofu lañu jóge parce que dafa jàng ci crise bi mais Macky Sall lu muy def nii euh, pourquoi mën na nekk euh, dans peut-être trois mois une grosse erreur politique réponse bi mu joxe tëj université c'est une mauvaise réponse à un vrai problème gis nga gis nga la la mauvaise réponse c'est-à-dire que violence bi ñu gis premier juin 2 juin 3 juin jógewul ci biir université ci bitti la jóge gis gis nga sooy def analyse politique quand nga nekk ministre nga nekk recteur nga nekk président de la république da nga war a toujours xool parce que crise jàgg na ci université mm-hmm. mais y a des yi nga xam ne les causes sont internes mm-hmm. comme 88 comme 2000 et cetera mais y a des crises dont la cause est externe mooy 68 mm-hmm. mais Macky Sall a une mauvaise réponse affaire bi du du du fermeture parce que la cause elle est externe loolu loolu tax su su ñëpp lu ñu gis mooy dañu ragal que par exemple ñu ne que euh, université de Dakar bari na ay opposant étudiants opposant parce que bari na fa doole mais c'est pas la solution c'est une bêtise de croire que. mooy boo bu fa Pastef bëree doole après qu'est-ce que cela fait. non c'est une bêtise. c'est une bêtise. gis nga PAI ah euh, LD AJ tous les partis de gauche là ils sont nés dans le campus là. dëgg la oui c'est vrai. Abdoulaye Bathily di def jàng xeex dem dellu jàngale bi muy jàngale il était de gauche les enseignants yi ñu doon xeex 68 ñoom ñoo dellu 80 dem di jàngale donc gis-gis boobu la xam nga bon que damay exagérer mais Macky Sall war na dellu quand même pour pour xool solution bi mu indi baaxul. d'accord bon je prends l'exemple maintenant des NTIC. c'est-à-dire gouvernement bi dafa war a bàyyi xel quand même université de Dakar parewul def enseignement à distance cest à lu ñu def ne ils sont en train de détruire la toute la réforme LMD ils sont en train de détruire alors que Abdoulaye Wade quand même am na lu mu posé dix ans vingt ans on est dans une réforme qui a duré vingt ans au bout des vingt ans on n'est même pas on n'est même pas prêt à cinquante pour cent loolu soo ko bëggee détruire en une année bon je pense que quand même responsabilité président de la République elle est engagée bon euh, je crois que bon maintenant pour venir à la question de bi ngay wax mode bi mais ça te montre ça te montre loolu mooy suufal xam-xam saa nga tëj université université nekk ci crise yow nga demoon damay dem défiler le mode nga autoriser un défilé de mode pendant que tu fermes les enseignements mais c'est-à-dire que tu rabaisses tu rabaisses l'institution da ngay enseignant bi yow euh, foo moo la gënal alors que bon su bu doon bon sens rek mënuma tëj université ma ne des problèmes euh, par-ci par-là ma am défilé de mode. Ouais, ah, En, tant que recteur tu dois même pas l'accepter. C'est paradoxal. et je pense que loolu mooy si tu agrandis maintenant pour man peut-être danger bi du foofu c'est ni ñuy rabaisser université bi wax nga sànq làmb wax nga les activités sportives ludiques et tout ce que tu même li ñu mënoon jël ci xam-xam ci mode ak lutte duñ ko am gis nga mode c'est une industrie ouais. c'est un savoir ouais. lutte c'est c'est une discipline c'est un savoir mais ñoom ni ñu koy defee c'est-à-dire pour foola pour pour distraire les gens alors que c'est pas ça mode c'est pas pour distraire lutte c'est pas pour distraire le sport c'est pas pour distraire ça fait partie de l'activité humaine mais c'est un bon gisee sport mais quand même c'est un savoir ni ngay waxee médecine wala ni ngay waxee agriculture mais ñoom noonu la ñuy waxee euh, sport <laughs> bien sûr donc c'est un savoir donc dañuy banaliser pour man euh, dernier point bi mooy la la la la la question de la sécurité honnêtement moi j'ai un peu peur euh, parce que gis nga aujourd'hui université c'est cent mille personnes cent mille personnes fu ñu nekk sont ils sont chez eux mmh. mais ils sont dans l'insécurité mmh. tu les mets dans l'insécurité bien mais kooku mën nga mën nga wax ne que yow tu fermes parce que y a des problèmes de sécurité alors que tu es en train de les mettre dans l'insécurité sociale morale psychologique tu tu rabaisses même leur leur raison de de vivre de vie pour man vraiment la question de sécurité Macky Sall war na ko xoolaat. parce que nit ñi dañu tiit. à cause de l'argument sécuritaire. d'accord oui oui oui. ku fi wax ku fi wax dara dañu lay wax ne on est instable les terroristes sont à nos portes <laughs> on va on va on bâtit la peur collective on, on, on nous vend la peur. oui c'est ça. et je pense que ça c'est pas du tout bon pour l'équilibre du de de de, notre société mais baaxul aussi fu ñu jëm sa élection présidentielle nit ñi dañu war a dal. que côté boobu vraiment. Euh, Euh, le président war na ci jógaat mm-hmm. bon j'appelle aussi quand même les recteurs ah parce que quand même euh, moi fait très mal parce que recteur bon man nga def politique mën nga bokk mais man fekk na Souleymane Niang recteur Souleymane Niang musul bokk ci parti su demoon ba toog ci gouvernement bi du toog mu côté gouvernement bi d'accord dafay toog ci côté enseignant jàkkaarloo ak gouvernement bi. d'accord c'est je pense que les recteurs seen rôle c'est pas du tout du tout du tout de soutenir le ministre ou les parti politiques le rôle c'est de défendre la communauté universitaire tey jii SAES moo waroon toog défendre son recteur. Ouais. mais pas l'inverse qu'un recteur qui qui qui euh, qui ouvertement contre sa communauté doo fa yàgg.